léegi su ma ñëwee combat yi nga xamante ni jot na fee taxaw gis nañ ki nga xamante ni mooy Modou ak Ama Baldé seen premier jàkkaarloo euh, daanaka yeggul te mu nekk làmb joo xamante ni làmb ju rëy la waaye amoon na làmb yu ko gënoon rëy ndax Modou Lo Balla Gaye gis nañ ko fi keneen ak keneen gis nañ ko fi mais làmb jooju ñu gis ne dafa taxaw rek coow li tàmmalee noo ko nga gisee boobu combat. Euh, combat bu bu neex mais combat bu dangereux. waaw man li may li tax ma ne combat bu dangereux la il faut supporter yi yow encaissé wuñu xaalis joxuñu leen xaalis te seen mbër lamb jey place u liggéeyu kaayam fa lay amee gagne-pain kon boo ma dee gunge fa ma amee fa may amee gagne-pain da ngay jëkk dawal sama sama diggante ak yow jàmm foofa da ma fay wutal jàmm ñu kenn mu supporté euh, mbërëm terewuñu kenn mu tàcc mbërëm ñu kenn mu yuuxu mbëru jàmbur seen affaire la mais euh, indi ay violence xeex xuloo buñ la ci yóbboo mbër ma du la seet si danaan xawma la ñu ci baari loolu dal na leen sol te seetu doomu adama def deli ci bunt bi ñu duma la yóbbu la police nga naan nga dikk mbër mi ne leen kii xaw ma ko sax. Mm. waaw mais ko kooku nag doo ànd ak sa sago nag seet na damay ñaan promoteur bi nag lig sama doom la di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm moom itam te def na lu rëy làmbam jële passé diggante Gris Bordeaux numéro deux ak euh, Reug dafa dugg ci lamb ji rek songuñu mm. père jërë ngeen jëf yéen yéen ay làmb yéen yéen ay làmb loolu na Euh, reconnaissance boobu mu reconnaître nañ ñooy lamb kon lamb war nañoo defal dara mais ku lamb defalul dara boo dee lambit da ngay sonn ci lamb rek mais doo daj ah te koy lamb ku ne da ngaa bëgg a daj ah, bëgg a nga def kon yaakaar naa ne euh, fii lamb toll daal euh, Modou Lo ak Ama Baldé man li may conseiller promoteur bi buñ ko tëggee arène nationale. waaw <coughs> arène nationale dafa nekk ci diggante pekin ak ak ak parcelle. mu nekk ci digg bi. waa parcelle bu ñu fëxee jóge na la ñëw waa Pikine fëxe jóge na ñëw bu lamb ja tase mari daytaal te foofu àll man bu ma sañoon dañ koy të tëggee Léopold Sédar Senghor buñ ko tëggee Léopold Sédar Senghor Euh, euh, euh, Ama Baldé buy ñëw jaar si autoroute bi dugge ci porte centrale bi kële di Modou Lo jóge parcelle jaare vingt six du du dugge porte boobu bu tasee ñi la jaar ne ñee jaar na le loolu daal laa gis. parce boo xoolee Ama Baldé Papa Sow noonu lañ ko doxalee woo mais mais noonu mooy yoon noonu day buñ ko defee jàmm am. combat boobu daal damay ñaan yàlla yàlla na ci yàlla sotti jàmm muy combat boo xam ne na nga ko juum daanu. mais noo ko gisee ci wàllum xeex ak bëre. amaa moom amaa moo man Modou Lo da ngaa wax loo neex ku ne Modou man amaa da ngaa wax loo neex man làmb jooju damay ñaan yàlla yàlla bu ci dër mu daanu am di nga bu ci dër mu daanu amul bu ñu jàppante ñoom ñaar. billaahi wallaahi wa taala ki daanu sot nañ ko tàcc. parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu te damaa fekk ñu bëre mbapat. ay jàmbaar lañu. ay jàmbaar lañu jàppantee ñoom ñaar nga gis ci weccit woo xam ne ci biir bëre mosoo ko gis mais nag bu ñu xeexee xeexu mbedd dóor mu daanu mën naa am. ci ñaari waa coup perdu lay dal te ama pied droit lay jiital di xeexe mais droite mais nag xam ne képp kuy jiital pied droit. Euh, euh, euh, Modou Lo da am parce que boo xoolee Gris Bordeaux pied droit lay jiital Modou loo da ko kor faqat ko mu def kat kat appui boo xoolee Eumeu sen pied droit lay jiital Modou Lo da ko da ko da ko kor dóor ko mu sedd moo tax Modou Lo dafa aay ci pied droit parce que ni mu aay ci pied droit heure bu la doxalee heure boo bu la doxloo ci loxo ndijooram nga dox topp ko bu la bu la bu la koree bu la nga àgg. moo tax combat bu garaaw a ngi noonu bu bu boo xam ne man daal li ma gis mooy ku juum daanu.